thank you jër jërë ngeen jëf dalee nag jàmm ci xew-xew bi réew mi tey àllarba ñu commencé ko ak grève bi nga xamante ni moo am ca mairie Kaolack ginnaaw ñi nga xamante ni ñoo liggéey am benn bis boo xamante ni ñoom ñëpp dañu bank seen loxo bañ a liggéey ndax ñàkk payoor goo xamante ni seetlu nañ ko ci fa ñu nekk démb nag ñoom ña nga dajaloo woon fa nga xamante ni moom mooy biir mairie ba doon fësal seen maire waaye tamit am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi toll ci fanweer ak ñett ñoo xamante ni ñoom ñëpp kenn seen xaalis ci ñeneen ñoo xamante ni sax agent lañ yoo xamante ni dañoo nekk congé waaye ñoom ñëpp kenn fayu leen seen xaalis ndax dañoo ñoom ñëpp kenn ñëwul pointé ca fa nga xamante ni la ñuy liggéeyee ñoom ñëpp nag ñu ngi toog di xaar naka la ñuy mujjee seen grève boobu nga xamante ni la nekkee ndax ñàkk payoor goo xamante ni jot nañ ko ca maire ba ñu liggéey Macky Sall moo ngi wéy di waxtaan nag naataangoom yu nekk ci beneen réew yi ginnaaw bi mu waxee ki nga xamante ni moo ne Ukraine mi ngi sekk waxtaan ak ki nga xamante ni moom moo nekk ca Allemagne di chancelier fédéral Olaf ñu ñaar nag sekki nañ ak waxtaan ci jafe-jafe yi nga xamante ni moo am ci àdduna bi fa nga xamante ni mooy Sahel waaye tamit jafe yi nekk ca Ukraine priorité yi nga xamante ni moo am ca sommet G7 bi war a am ca Allemagne waaye tamit ñu gën a rataxal coopération bi nga xamante ni moo am ci diggante Sénégal ak Allemagne ñu dem fa nga xamante ni mooy assemblée nationale ci ñaar ñi nga xamante ni ñoom ñoo génnoon àdduna di Jéema Ndiaye ba ak ki nga xamante ni mooy Hamady Gadiaga nag a remplacer nag démb Moustapha Niasse daan leen dalal fa nga xamante ni mooy ki nga xamante ni moom mooy Mamadou moo remplacer kii di Hamady Gadiaga bokkoon ci ko remplacer di Néné Marie mi nga xamante ni moom mooy jël place am fa nga xamante ne la nekkoon ca assemblée nationale beneen mbir muy mbiru aju màkk mi nga xamante ni jamono ji ñi ngi sikki sàkk ni nga xamante ni la Sénégal waa demee foofu nag ci loolu nag nga xamante ni moom moo jiite mbir moom di Riyad daan na wàññi li nga xamante ni la Sénégal doon am jóge 50 pour cent wàcc ba 30 pour cent Sénégal daan envoyé lu toll ci fukki junni ak ñaar waaye nag ren ji li nga xamante ni jël ko dogal moom mooy ñeenti junni yu toftal juróom-ñaar téeméer yoo xamante ni lañ jàpp ne ñoom ñoo a nga xamante ni mooy màkk ren ji waaye nag loolu nga xamante ni moom mooy Aïssata Sall Sall daal dina weddi loolu lépp ndax nee nag kenn waxagu leen sax jëm ci li nga xamante ni la Sénégal war a amal ci mbir moom mu mbiru aju màkk gi ndax lu toll ci millions ci àdduna bi ñoo war a dem aji ji waaye nag lu wund ci Sénégal ni mu war a am ci ñi war a dem loolu fësalaguñ ko ci ay fan yu jëm moom mi nga xamante ni moom mooy yor wàllu affaire étranger dina ci indi ay leeral beneen biir si wàllu coronavirus bi démb Sénégal amul benn nit koo xamante ni am na li nga xamante ni moom mooy feebaru coronavirus te tamit kenn faatuwu ci ginnaaw bi nga xamante ne nag amal nañ ay test yu toll ci juróomi téeméer yu toftal juróom fukk ak juróom-ñaar ñu wax ne nag Sénégal démb gisuñu kenn koo xamante ni am na boobu feebar ñu wane ne sax est-ce que feebar bi sax ci biir réew mi waaye terewul ne am na lu toll ci fukk ak juróom-ñeent yoo xamante ne ñoo des ci leen di suivre ngir leen ci feebar boobu nga xamante ni moom moo nekk ci biir réew mi nga xamante ni booba léegi lu toll ci benn million ak lu tegal ñu ñoo daal di vacciné wu ci biir Sénégal ñu jeexalee xibaar yi ak li nga xamante ni moom mooy collectif bi nga xamante ni ñoo taxaw temm ngir xeexal ki nga xamante ni mooy Cheikh Omar nekk ci kaso bi ginnaaw bi nga xamante ni démb ñu ngi doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi Guy nga xamante ni moom mooy biir Ndakaaru ñoom ak mbooleel kuréel yi nga xamante ni ñoom ñooy xeex ci société civile bi ak ñenn ñi nga xamante ni ci askanu Sénégal lañ bokk ñoom ñëpp taxaw nañ temm ngir xeexal ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Omar Diagne ngir mu génn ci kaso boobu ñoom nag jàpp nañ ne sax moom dafa nekk ci yoon di xeexal Sénégal moo waral ñu bëgg koo xoqatal waaye am na ñeneen ñoo xamante ni war nañu mën dugal ci kaso yi ñu ci mel ne ñeneen ñi nga xamante ni ñooy sàcc li nga xamante ni mooy alalu réew mi ak tamit saaga li nga xamante ni ñoom ñooy waaso yi nekk ci biir réew mi ñoom nag taxaw nañ tem ngir xeex sand bi ñu jëm ci li nga xamante ni moom mooy ab manifestation bu mag bu ñu amal ci biir Ndakaaru li moo gën a fës ci xew-xew biir réew mi tey jii ba ñu ni jox di daje suba ci leen xibaar fii ci réew mi officiel la